kañ nga dem immigré Italie. ma ngi dem Italie nak 2013. 2013. avant lolu lan nga dek lan nga don def fini avant may dem Italie yalla dafa dogal ma ngi don gannaaw bama jangé ba paré mhm. ndax fan nga jangé ma ngi jangé daara ju ñuy wax ay Ahmed Sakhir Lo. Mhm. mi ngi bun ben internat bu nek fofu fa laa jàngee alquran ba mokal ko. ba jangé alquran ba mokal ko sam papa ni comme jeexal nga alcorane da ngay dem nga dem jangi xam-xam ñu yobuma ma école bu ñuy wax mu jamma Cheikh Mahmoud saw mi ngi ci essence yumbal ma fay jang xam-xam ba genn fofu sam papa ni ma da ngay dem ci benn góor gu nek keur góor gi Ousmane Kayre ci ñetti mbaar mm-hmm. mu xaddamu seigne sir hadj malik la ma dem fa nek fa batay ci daara ji di jang xam-xam fa la nek di jang di jang ba commencé nek mak sama papa ni ma comme jàng nga te li nga jàng xëy na xaw na am benn temps bu mu diire léegi nag da ngay dem nga dem liggéey nga jàngi métier ci la ma sama papa jëlee boole ak xaritam bu ñuy wax Pape Seck mu yoroon garage mbay mbub ma dem nekk ci garage boobu dafa liggéey mécanicien maa ngi waxtaan ci daayira yi nekk ci koñ bi maa ngi waxtaan ci daayira yi léeg-léeg ma am invitation rajo dem animé jikko léeg-léeg ma am invitation gàmmu wala invitation conférence wala yu mel noonu di ko def mais téewul maa ngi ko booleeg sama liggéey fii ci Sénégal. Mhm. yàlla di dogal ma nekk ci loolu ba l'an 2013 ma ni naa tukki parce que booba gis naa ni immigré bi ci benn côté xaw na baax. Mhm. parce que gars yi ñibbisi bu ñibbisee dañ lay xaw a góondi daal yaa <laughs> gis sa xel mi yëpp nekk bitim réew. <laughs> ay yow côté yi di sañse fii xam nga. <laughs> ani man tooguma fii naan damay liggéey ay magasin de mhm. sama ndiyaay daggal bëgg bi mhm. moom mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mhm. ne ma loo bëgg ma ne ko tukki mu ne ma naa la yóbbu sama ndiyaay yóbbu ma ma dem nekk bitim réew di fa def samay émission émission yooyu ma def bitim réew nag ci la ma yaasin xamee ci la ma keneen ak keneen xamee d'accord balaa ñuy ñëw foofu noonu euh, kon buñ dégloo sa cursus euh, jaaroo benn yoon école tubaab jaaroo benn yoon école française mais euh, ndax loolu jàng alxuraan boobu nga doon def jóge ci daara bi dem fële ndax yow kese yaa ko jot a def wala sa papa yeneen doomam yëpp jaar nañ foofu. Euh, sam papa nag yàllaa dogal ku mhm. boo commencé mën a wax papa tàngal mooy yaa nga daara ja. yéen ñëpp góorgóorlu ba a wax papa tàngal. Uh-huh. waaye boo commencé wax papa tàngal rek a dem daara. Mhm. mais ci doomam yi dem daara man la ci yàlla dogal may waxtaan. d'accord léegi bii waa Italie daal ñëw fii di la gondi nga gis leen ñu yor oto yeeg yooyu léegi bi nga demee ndax gis nga gondi boobu. ñu doon ma demee moom gisuma ko 100 pour <laughs> dañ doon dañuy nax gars baa baadu. moom kay buñ la taxee jël gaal gi nag am nga problème. Mhm. moom moom moom Europe moom. il faut nga dem ba àgg. Europe ak yowmal xiyaama yam yaasin ku fa demul <laughs> mun la wax la fa nekk. Mhm. bien vrai que ni moo tane Sénégal nag ci benn côté. Mhm. parce que Europe ak Sénégal bu ñu yemoon ñii tukki du ñu tukki mais mënuñoo yem. moog yowmal xiyaama yem. moog yowmal xiyaama yam mm. ki fa dem li fek demo fa. kenn mënu la ko bu ma toogee la yowmal xiyaam dem na do ma gëm parce que nga nan ma yaangi fi mëno xam la fa xew. Mm-hmm. Europe non la mel. tay bo nan nit ki gor gor lu investir ci sa rew liggey dala naan man nag yaa ngi heure bo ñëwee vacances bu sa vacances jeexee nga wat kon bu neex bu nakari won nga tok lol la gaay di wax. Mm-hmm. Euh, bi nga commencé foofu noonu naka la commencé waaraate bi demee parce que da nga dem pour liggéey. waaw demoo woon pour waaraate. bi may dem. Mhm. dama demoon pour émigrer. pour émigrer waaw liggéey pour jaayi saak. Mhm. dàqanteeg police yi. Mhm. ni gars yi di def. yàlla dogal bi ma agsee ñu ne ma am na daayira parce que ku xam Oustaz Modou Fall ci yëmbal xam ko ci daayira yi xam ko ci waxtaan yi nga xëy xëy ñu ne la immigré nañ ñu bari dañ lay woo sa foofu amul daayira de maanaam xam nañ ni lii nga mën ak lii mooy sa bëgg-bëgg kon yow boo demee amu fa dinga nga tum mm-hmm. ma dem bitim réew def fa deux semaine am sama benn doomu ndey ni ma am na daayira bu ne ci dëkk bi bu tudd daayira Seydil Hadji Malick te comme yow ci tariixa bi nga bokk nañ fa dem nga inscrit wu di waxtaan ak waa daayira bi ma dem bokk ci daayira bi mu ne leen kii sama doomu ndey la oustaz la senegal yii la fa doon def waa daayira bi ne ma lënd bii di ñëw nga waxtaan lënd bii di ñëw ma waxtaan waa daayira bi nag léegi abonné nañ la sag lënd yaay waxtaan chaque lënd may ñëw ci daayira bi di waxtaan di waxtaan ak waa daayira bi am ku bokk ci daayira bi koo xam ne xamante na ak directeuru télévision bi nekk Diaspora 24 muy Aline Ndiaye moo Aline Ndiaye ni ko ñun daal dañ fi am benn élément boo xam ne day doog a ñëw daqaar la mais xam naa ni daal <laughs> boo ko amoon sa télé bi dina baax torop mm. Aline ma ma dem ñu waxtaan mu ne ma dama bëggoon télé bi day doog a ibi amagul xaalis mais nag boo ci jàppee ba mu jug mën nga ci gis sa bopp mbir boo ko manee te nit ñi xamaguñ la début bi day metti parce que il faut nga def promotion pour nit ñi xam la moo tax début bi day metti léegi nag alin jël ma ci télé bi ma koy defal émission chaque guddi àjjuma émission bu tudd xam sa diine muy daw ci télé bi nit ñi diko ko mur mur yi di ko seetaan émission bi commencé daw 1 mois 3 mois rek ñu commencé ma contacter dañoo bëgg nga défal ñu conférence samedi bi di ñëw ma dem ba lama doon def ci walu njaay mi conférence yi occupé ko. nga ba njaay ma. bayiko ah bon waaw. Mhm. parce que kuy jaay xaalis ngay wër. Mhm. bi nak maa ngi am yalla di ci am teranga chaque samedi wala dimanche ma dem conférence yi. Mhm. ma yi ba pare ñu ñëw ah oustaz kontaan nañu wax dëgg yàlla enveloppe bii ñoo ko yëkkati jox la ko suñu xol sedd na trop. Mm. nga daaj ji enveloppe bi muy benn somme bi. nga comparer some bi ak CFA bi mu xaw a bari. Mm. comparer somme bi. Mm-hmm. ak CFA bi xaw a bari. Mm. kii mënuma koo booleeg nekk fii di dàqante de. Eh. naa concentré wu ci yonent bi rek. Eh. dana ma teralal boppam de ndax moom ku ko lebal mu teral. ma nekk ci conférence yi nekk ci mhm. télé bi mhm. télé bi nag moo ma lancé ba nit ñi mën maa conférence loo mhm. ndax ku la seetaan nga def émission benn yoon la ngay wax bu ko neexee wala la ngay wax mu gis ci boppam daf lay bëgg indi ci dëkkam pour nga waxtaan ak seen waa dëkk émission yooyu ma doon def nag Yacine moom la nit ñi di dugg ci YouTube bi di ko dagg télécharger émission entière boo xam ne une de temps trente minutes la nga koy def ay séquences

Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.